ok incha allah ñu ngi war a jël suñu aaya bu jëkk suñu aaya bu jëkk ci suratu nisa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon mbokk yi ñi ngi dajawaat ci suñu daje bu màgg bi ci téereb borom bi jalla waala suñuy yonent sallallahu alayhi wa sallam béggeen ñu ci ay bég loole ñu ngi ñaan suñu boroom yàlla nañu jagleel mboolem yi la ci yonent bi doon béggale mboolem ña koy déglu it ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yàlla subhanahu wa taala defal leen loolu te fayal ñu ñi nga xam ne ñoo koy jottali ba mu yegg ca ñoom kon tey jii mooy ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru rajab ci atum 1444 di dëppoog le 15 février ci 2023 incha allah mi ngi noonu xam naa suñ demee ba Cheikh Ousmane pare rek mu jëloon ñu suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ذلك أدنى ألا تعولوا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم suñu borom mu ne yaa ayuhannas ey yéen nit ñi ittaqu rabbakum ragal leen seen boroom allazi xalaqakum min nafsin waxida moom mi leen bind jële leen ci benn bakkan wa xalaqa minha zawjaha bakkan boobu ca la bindee soxnaam sa wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa génne ca ñoom ñaar góor ñu bari ak jigéen ñu bari wattaqu llaha allazi tasaaluuna bi ragal leen yàlla mi nga xam ne ci moom ngeen di laajante wal arham te ragal yàlla it ci mbokk gi mu doxale seen diggante inna allaha kaana alaykum raqiba yàlla day nekk na ci seen kaw ku leen di fuglu di leen surveiller wa aatul yataama amwaalahum e waay jox leen jirim yi seeni alal wala tatabaddalu alxabiisa bi tayyib bu leen soppee mukk loo xam ne nii dafa sobewu ay lu doy di bi tayyib te la tey la la wala taakulu amwaalahum ila amwaalikum bu leen lekk mukk seen alal muy alali jirim ya di ko dugal ci seen biiri alali bopp innahu kaana xuuban kabira lool day nekk na aw njombe muy bakkaar kabiran bu màgg wa in xiftum alla tuqsitu fi lyatama su ngeen demee nag ba jàpp na du ngeen mën a maandu ci jirim ya fankixu ma taaba lakum min annisa takk leen lépp lu teey seen bakkan ñeel leen te soxna ya mas na ngeen ngeen takk doon ñaar ñaar la wa sulaasa wala ñett ñett wa ruba wala ñeenti ñeent fa in xiftum alla taadilu su dee dem ngeen ba ragal leen ne du ngeen mën a maandu fa waaxida yem leen ci benn aw ma malakat aymaanukum wala loo xam ne moom na ko seeni ndeyjoor muy seen jaam seen jaam yi jigéen ya zalika adna an la taulu lii day mooy gën a jeng mooy gën a jege ci ngeen di bañ a jeng mi ngi noonu mbokk lii mooy suratu nisa ci saar bi gën a gudd ci alquran gannaaw suratul baqara allahuma li muy gudd gudd kii de huzayfa alyamani nee na gis naa bis yonent bi alayhi salaam di waajal naafila nee na ma ñëw taxaw ci gannaawam nee na muy tari suratul baqara di dem ba mun sama tànk yi metti ma ne ah xanaa da koo nar a xaaj yonent bi romb dem tari suratul baqara ba mu jeex ma ne alhamdulilah mu ubbi suratul nisa gis ngeen mi ngi noonu tari suratul nisa ba mu jeex doog a tari ali imran doonte ne boo demee ci téere bi ali imran moo jiitu nisa waaye loolu mu lay wan ni rasul sallallahu alayhi wa sallam moo doon digle ak jaamu yàlla waaye moo ci rawoon keneen ku dul moom mi ngi noonu ci saar boo xam ne ni it yelloon na ci bépp jullit bépp jigéen a góor nga xam lépp alxuraan waaye nag am saar yu ci gën a yey ñu gën koo xam rawatina suñ mbokk jigéen ñi muy suratul nisa suratul nuur suratul ahzab yi moom jigéen bu nekk waroon na fexe ñu tafsiral ko ko ba mu comprendre ko suñu boroom mi ngi koy jëkk ubbee ci ni ay yéen nit ñi ragal leen seen boroom bi nga xam ne moo leen bind mbokk julit da ngay war a bàyyi xel man may kan man mbindaa fa nu yàlla la boo xam ne moom la neex ci bis sangam mu décider créer ma ci sama biiru yaay bàyyi ma fa la ko soob génne ko di ma màggal ba tal ba ma tol nii ma tol mooma moom da nekk ci man yépp moo ko ci def ma ndax gaa yi ku mel nii yeyoowul ñu ragal ko waay loolu yemul foofu mooy sa avenir borom boobu tëralal na la aw yoon ne la yoon bi boo ci jaaree àjjana moo lay xaar soo ko jàddee sawara moo lay xaar te lim la wax mën na ko kooku yeyoon nañu ragal ko su ko defee mbir mi mooy niñ koy ragale niñ koy ragale mooy jéem a jàng diineem jéem a jàng diineem ndigal ya ca nekk nga def ca sa kemtalal kattan tere ya ca nekk nga bako sa kemtalal kattan loo ca juum ba def ko nga tuub ko moo ñu bind jële ñu ci benn bakkan muy aadama alayhi salaam mu safaanoo ak ba léegi li ñuy jàngale suñu doom yi ba fii may wax ak yéen dans les écoles la ñuy jàngal suñu doom yi mooy ñun ay siti golo lañu ci golo lañu jóge golo mooy suñu maam ba tey dans les lycées laaj leen seen doom yi nekk sixième wala cinquième lañ leen di jàngal ba tey mooy doomu aadama golo mooy maamam waaye aadama du maamam doonte ne ne borom xam-xam bi dañ ni ku nangu ne golooy sa maam moom ñu ne la yow golooy sa maam ñu def la golo yow waaw waaye ñun golo du suñu maam bàyyi aadama mooy suñu maam yàlla ko bind ci loxoom bind ko gannaaw ba jël ci moom ak faaram bind ci la nga xam ne moom mooy soxnaam sa hawa boole leen ci ab sëy sëy boobu ñu commencé di jur mboolem tey ku nekk ci kaw suuf ak ñi fi mas a jaar yàlla xam combien de milliards lañu ñoom ñëpp ñaari waajur yooyu lañu am muy aadama ak hawa loolu it moo tax ba bokk na ak doye di ngay xeeb doomu aadama ngir couleur bi mu yor wala lakk bi muy yor déedéet suñu borom mu ne maa leen bind min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yéen ñëpp yéen a bokk maam maa leen tasaare nag ci ay melokaan ak ay lang ngir ngeen mën a xamante waaye ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla mu nekk bakkaar yu grave xeeb doomu aadama bi ngiree cosaanam ak di bakkoo la nga xam ne mooy say maam donte ne yonente bi sam ne ne du jóge sama xeet ba mukk mi ngi noonu toni fi fi l ansab wal faxru bil asab sama maam mooy nangam sama maam noo nangam rawatina li gën a garaaw mooy maamu ceddo yoo xam ne nii ay yéeféer lañu woon xamuñu diine noot nit ñi jël seen alal dañuy gis ko taxaw di ko bakkoo naan diwoy sama maam diwoy say maam diwoy say maam mbokk njuumte mënta passé loolu benn bakkan ngeen jógee ki gën a tedd mooy ki gën a ragal yàlla ragal leen yàlla moomu nga xam ne ci moom ngeen di laajante ca mooy tey da ngay gis lu mel ni ab sëy tey soo indi woon un milliard ne julit jaay ma sa dëmb jigéen bi day bañ waaye may ma ko ci yàlla tax mu ne la ay ca mën na la ko may nga jox ca ñu may la ko mais jaay laa kon dañuy mayante doomu aadama yëpp da ngay ñaan njëkk ci turu yàlla loolu lépp da ngay gis ne day mën a nekk yonent bi alei salaam ne ki leen laaj ci turu yàlla jox leen ko allahuma lu dul mu laaj la loo xam ne ak lor la wala laaj la loo xam ne ni wóor na la ne aaju woo ko aaju woowu ko suñu borom in mun a ragal leen yàlla ci mbokk gi yàlla doxale seen diggante naam moo ñu génne ci aadama tasaare ñu am ñu boole ñi la yàlla booleel ñu say mbokk nga la waay loo mën ci lu baax def ko day leen jokk xatta même ñoom bu ñu la daggee di ñaawal jëm ci yow yonent bi alei salatu wasalaam benn sahaaba ñëw na ci moom da ko man day sama mbokk yi damay rafetal jëm ci ñoom ñuy ñaawal jëm ci man dama leen di jokk ñu may dagg mu ne ko li ngay wax bu day dëgg la day dafa mel ne que annama tasifuhumul mal dafa mel ne yaa jël ab doom di leen ko sànni te du doo deñ di leen féete kaw fii ak yaa ngi nekk ci loolu doo dañ mukk di leen féete kaw fii ak yaa ngi nekk ci loolu kon mbokk gi ñu jokk ko ci yàlla tax malheureusement sunu ndaw yi tey xamatuñu luy mbokk xale yi tey xarit lañu xam am maa mbokk la da ngay gis ñoo xam ne mën nañu nekk ak ñu ñu bokkal benn maam ci dëkk pendant quarante ans kenn du toppatoo sa morom mbokk nag loolu jaaduwul borom bi nag mu ne xam leen ni seen borom yàlla mi ngi leen foglu raqiban fan ndax bu ñu nekkee ci jàkka ji la wallah ndax bu ñu nekkee marché ndax bu ñu wéetee suñu kër la wallah yàlla mi ngi ñu foglu fu ñu mën a nekk wa huwa ma'akum ayna ma kuntum xamal ne foo mën a nekk sa réew ak bitim réew marché baak sa biir néeg sa foo mën a nekk xamal ne sa borom yàlla mi ngi lay fuglu dara réeru ko ci li ngay jëf ci li ngay wax ci nekk li ngay xalaat sa biir xol aaye bi mbokk importance am taxoon na rasul sallallahu alayhi wasallam nii nu mu dajak mbooloo di leen wax wax bu am solo na doon ci wàllu sëy la wàllu jihaad la wàllu defare ay nit la lu dul aaye bi daana ko jàng boole koog aaya bu yàlla wax ci suratu al imran ak aaya bu yàlla wax ci suratu ahzab te ngeen yàgg ko dégg yéen ñëpp suñu borom yàlla bàyyi loolu daal di ne ngalla waay jirim yi jox leen leen seen alal te mbokk arab daawul donnuloo jirim képp koo xam ne nii dafa dee bàyyi njaboot gu sew frère yi ñoo ñëw jël alal ji parce que ñu ne jirim munta jihaad munta def dara ku majeurul daawul donn suñu borom nag mun na déedéet jëriñ yi jox leen leen seen alal te bu leen soppee lu bon ci lu baax kii bàyyam bàyyee la na ko ab tool ak fukki nag masalan mu dee ñu ne waaw sa bàyyi de bàyyi la na la ab tool jël beneen tool bu bokkul ak tool ba bàyyam bàyyi woon jël yeneen nag yu bokkul ak nag yi bàyyam bàyyi loon li tax i borom bi tuddoog alxabiis ay xabiis bi kasbihi mooy la nga faggu lu bon la bi nga noonu fekk lay tayyib la jirim ba moom moom nga nga daal di koy jël daal di koy jox alxabis borom boobu it mu ne bu leen jël alali jirim yi di ko lekk di ko booleeg seen alal xam leen ne loolu ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk xoobu rek musiba la bàkkaar la kabira nag yàlla boole ko ci moo tax yonente bi alei salaam daana wax ne ijtanibu sab al mubiqat moytu leen juróom-ñaari bàkkaar yu alage ba mu waxee nangam nangam nangam bokk na te wa akli maalil yatim mooy lekk ak lu maalil yatim lekk al lu jirim ci bakkaar yi gën a garaaw la bokk te sunu borom dana ko waxaat ci kanam tuuti borom bi nag mu ne yéen ñi nga xam ne nii da ngeen a yor ay jërim yu jigéen ngeen ragal ne su ngeen leen tekkee du ngeen mën a maandu ci ñoom te booba mooy nga yor koo xam ne nii masalan sa sœur la boo xam ne sa baay juru ko koo xam ne sa doomu bàjjan la yow yaa ko yor nga bëgg a séeg moom ñaar mën na cee am nga takk ko doo ko jox àq ba mu yelloo wala nga takk ko moom ruus moo tax mu ànd ak yow waaye bëggu la loolee yépp mën a jur problème suñu borom ne nag bu ngeen ragalee jéng ci jirim yooyee amul problème dem leen takk la leen téye ci yeneen jigéen ñi li borom bi it ne ma taaba lakum mooy wane ne mbokk nit ki warul see kum bëggul bokk na aada boo xam ne nii sun maam yi dañ koy def dañuy xëy xëy rek fëgg sëñ caam nijaay ji ñëw naa kii day daa jox naa la ko duñ la sax tàggu mi ngi noonu wala nga gis nit ku dee ñu ñële frère bi par force jëleel laa buñ ko waxee ca góor nag te jigéen la gën a yey ndax góor sax boo ko mayee kum bëggul xëy na mën naa am keneen ku ku kum bëgg da suñu góor saraxoo la gën doon wax rek mu ne ah sama awo bi sama mbokk yi ma imposer takkal ma ko waaye sama ñaareel bi ma takkal sama bopp boo ko gisee yaa ngi dégg waaw loolu sax xëy na moom góor moom mën na ko mais jigéen moom mënul loolu jigéen day nekk prisonnière ca ka nga xam ne moom lañ ko may looloo tax ba lu dangereux la suñu aaday maam la nag waaye aada la boo xam ne nii ngal la waaye dañ ko war a bàyyi yal na yàlla dolli wér suñu mag abu abubakar sàll fii la toog doon ko nettali yaakaar naa am na ñu bëri ñu ko fekkee mooy suy ñetti bàmmeel yi mooy da ngay woo sa doom bu jigéen ne ko kat dama lay may daam caam mun na bàyyi man kooku bëgguma ko nga ne ah boo deewul wala nga dee wala mu dee da nga dem suy ak moom mooy suy ñetti bàmmeel la wallahi mbokk jëri maa taaba fokk ndaw si di bëgg ku góor ki bëgg suñu borom nag mu ne man ngeen takk masna bu la neexee ngeen takk ñaar ñaar ndax borom bi mbooloo bi lay waxal waxul ak kenn yéen jullit ñi comme neex na takk ñaar comme neex na takk ñett comme neex na takk ñeent comme la muy wax ca malaaka yi rek uli ajnihatin masna wa sulaas wa ruba lii mbokk moom la yàlla wax am na nag ñu jàpp ne ñoo gën a digg yàlla ak yonente aw sahabatul kiram alquranul karim ba da ngay gis ñoo xam ne nii topp seen bànneexu bakkan ñoom dañ naan suñu borom ne takk leen masna wa sulaasa wa ruba kon takk leen deux plus trois muy cinq plus quatre muy neuf bi góor am na droit takk neuf am ñu gën a saaraan ñooñu ne suñu borom ne ne deux deux kon da ngay def deux deux muy quatre trois trois six quatre plus six égale dix quatre quatre quatre quatre huit kon bu la neexee dem ba dix huit donte ne dégg naa koo xam ne moom moo gën a jël coupe bi yépp mu ne suñu borom ne takk leen maataaba lakum moo tax ñun dañuy takk di takk di takk di takk rek ni ngi noonu waaw ci dañ ko xamal takk na xanaa lu jóge téeméeri soxna te dee na bàyyi leen fi dee na bàyyi leen fi ab Sénégalais la dee na bàyyi leen fi ala kulli xaal mbokku góor amul droit passé ñeenti soxna yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nawfal ibnu maawiya ñëw na ci moom indil ko fukki soxna non juróomi soxna mu ne ko bàyyil kenn ki julit ñeenti lay am gannaaw ba da ngay gis na al Ghaylan ibn Salama moom fukki soxna la indi yonent bi ne ko tànn ci ñeent ñeent su nga bàyyi leen julit de passé ñeent sahabatul kiram Abubakar Omar Ousmane ak mboolem sahaba kenn musu ci passé ñeenti soxna lii mbokk nañu xam ne moo ci nekk jagleel ku ñu jagleel dégg naa benn waay ñu koy laaj benn sëriñ waaw loo xam ci ñuy dépassé ñeent mun a ñaari koy def mooy saay sa mooy borom sañ-sañ wala ab saay-saay borom sañ-sañ wala borom saay-saay pour ñun nag jullit borom sañ-sañ bi kenn la muy ar rasul sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla mayoon mu paase ñeenti jabar bi charte charte ba mooy doo dépassé ñii ba borom xam-xam yi dañ naan aay ba bi mu wàcc bu soxna yi dee woon yonent ba dootul dootul yor soxna ñii doo leen paase moo tax soxna yooyu même bi yonent ba faatoo kenn du leen takk kon moom dafa am statut spécial ba ko yàlla jagleel waaye keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoo droit passé ñeenti soxna mi ngi noonu borom bi nag ne su ngeen demee ba ragal na du ngeen maandu bu ngeen tekkee ñaar wala ñett wala ñeent yem leen ci benn bi te it mbokk loolu dañ cee war a bàyyi xel bu baax mooy kii takk ñaari jabar day fekk mën na koo yor na mu yore ab aawoom yemele leen defar ku nekk mu jox la àq ba nga yeyoo su dee ne ragal nga loolu mënuloo ko muñal ci benn bi ba baa ngay man negam célibataire bi dañ naan ko boo mënugol yor jabar muñal ba baa ngay man kon it yow mi nga xam ne da ngaa bëggum ñaareel muñal ba man leen a yor kiy wax jëm ñetteel ñeenteel noonu la waaye nga looy boo ko mënee def ko boo ko mënee def ko ci jaamu yàlla yi gën a kawe la bokk yonente waaye sax mu ne tazawwajul waluudal waluuda wa waluudal waduuda fa inni mukaasirun bikum al umama yawm al qiyam takk leen soxna yi te it tey ko xam li xew dans le monde waxuma Sénégal mais dans le monde wallahi boo demee Arabie Saoudite borom xam-xam yi seen problème numéro un bokk na ci jigéen ñi xas kenn sëyul boo demee porte porte maa ngi gis benn rapport bu ñu ci Égypte rek ñuy wax plus de dix millions de jeunes filles yoo xam ne kenn sëyu ci loolee mbokk mbir la boo xam ne ab feebar la boo xam ne ngal la waaye intellectuel yi tubaab yi nga xam ne ñooñu intoxiqué jàpp ne takk ay jabar nangam ngal la waaye ko mën a takk na takk ko mën a takk na takk loolee jaamu yàlla gu rëy la takk soxna génne ko ci célibataire wallahi jaamu yàlla gu rëy la koo xam ne noonu naa dund ba xëy dee du am doom nga takk ko mu am njaboot loole wallahi jaamu yàlla gu rëy la kon képp ku ko mën na ko def ñu waxit suñu mbokk jigéen ñi ne yàlla moo ko farataal ne góor ñi ku ko mën na ko def nangu ba ngay nangu dogalu yàlla wallahi moo gën ci yow sun maam yi nga xam ne amoon nañu ay wujj nangu loolu rafetal ko wujj woowu yàlla da koo mujj wëlbati def ko bardan wa salaamun alayhim man xam naa sama ñaari maam yoo xam ne nii ba ñu nekkee ci seen kujje ga ba seen borom kër faatu ay at ñu bokk benn néeg dañ doon wax bu leen yàlla bëggee da leen di faat benn yoon ndax xam nañ ne ku jëkk dee bàyyi morom bi rek cëri sa na am problème yàlla dogal na presque ci un an lañ lañ rawante kon képp koo xam ne nangu ne ne kii kat sama borom kër bi li mu def yàlla moo ko farataal ca mën na ko nga muñ ko wallahi yàlla wëlbati ko def ko bardan wa salaaman yàlla na yàlla yaatal suñu xolu jigéen ñi ci loolu ndax suñu borom mu ne tafassahu yafsahi llahu lakum borom bi nag subhanahu wa taala nee na lii moo gën a jege ci ngeen di jeng mooy dem takk keneen ku bokkul ak jirim bi ngeen yor ba bañ ko lor moo gën ngeen dem di jeng mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكفوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا بارك الله فيكم سني بارهم جل وعلا مني وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ايواي جوخلين جيجين seen can ga muy may guñu moom fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa su dee ne jox nañu leen ci teeyug bakkan ca can googee loo xam ne nii def nekk na seen teeyug bakkan tibna lakum mooy teey na jóge ci ñoom ñeel leen ci loo xam ne teeyug bakkan la kenn forcé wu leen ca fakuluhu lekk leen ko hanii an ca na mu gën a neexe mari an ak na mu gën a yaatoo mi ngi noonu wala tu'tu sufahaa amwaalakum bu leen jox nag ñi doyedi mooy xale yi majeurugul la nga xam ne mooy seen alal ya allati ja'ala allahu lakum qiyaama alal jooju nga xam ne yàlla def na ko ñeel leen mu leen di taxawal warzuquhum fiha waaye nag dee leen leen wërsëgal ca alal ya di leen ci dundal waksuuhum dee leen leen ca wodd wa qulu lahum qawlan maarufa te ngeen leen di wax wax joo xam ne wax ju njëkk la waxi njëkk lay doon wabtalul yataama dee leen nattu nag jirim yi di leen test jirim yi hatta ida balagu nikah suñ demee ba jot la nga xam ne muy ab sëy fa in xiftum fa in anastum minhum rushda su ngeen demee ba yëg ci ñoom la nga xam ne nii mooy ak njub fa dafa aw ilayhim amwaaluhum jëñ leen delloo leen jëm ci ñoom seen alal ya wala taakuluha israafan wa bidaara bu leen ko lekk mukk nag ci ak yàq ak jëkkante an yakbaru ngiree bañ xale ba gaaw a màgg balaa xale baa màgg wa man kaana ganiyan fala yastaxfif koo xam ne woom le na nga la waay ne fegu bañ a laal alali jirim ya wa man kaana faqiran fala yaakul bil maaruf koo xam ne nag daa ñàkk nga la waay na lekk waaye na lekk ci njekk fa ida dafaatum ilayhim amwaaluhum su ngeen demee nag bay delloo ci ñoom seen alal ya fa ashhidu alayhim seedaloo leen ci ci ñoom ci loolu wa kafa billahi xasiba waaye nag xam ne na doy na yàlla ci koy régler ay jaamam mi ngi noonu mbokk suñu boroom gis nañu ne bu jëkkita nit ñi jigéen ñi dañ leen a suufee loon da ngay gis bàyyi wala ko moom heure bu mayee doomam wala sëram alal ja day jël rek def ci poosam suñu borom nag mu ne déedéet jigéen ñi nañ leen jox seen can ya mu nekk loo xam ne neex la naxa la rajulun mooy may na ko loo xam ne ni moo ko moom can gi soxna si moo ko moom bu jaaree ci loxo bàyyi wala loxo bàjjan ku mën a jaarit soxna si moomeelu boppam la su ko defee heure bu demee ba sëy bi gisatu ko gisatu ko lu ko neex can googee mu delloo ko pour jot boppam mais malheureusement lu ñuy gis ci Sénégal mooy kii day ñëw may un million ñu mel ne may nañu ko can un million jour de mariage bi ñu ne bis sàngam la balaa mariage ba ñëw un million ba pasar pasar nañ ko ci ay yére yoo xam ne daanaka bu ko sole jour de mariage ba dootu ko mën a sol feneen yàqte lépp mu jeex loolu mbokk safa noonu xatta ak lu suñ maam yi doon def lu bari suñ maam yi ay jur lañ doon laaj nga ñëw indi ay nag indi ay xar ñu xam ne soxna si lii moo ko moom bis bu demee ba gisatul gisatul lu mu xam mu delloo loolu ngir moom boppam waaye tey yow kan caneen nañ la un million yéen seen famille mënuñu dajale sax trois cent mille un million bi nga pasar pasaree ko soxna si bu demoon bëgg a génn ci sëy bi ni muy def gis ngeen kon can gi moo ko moom amaa nag ñoom ñi moom seen can muy soxna si can googee buñ ca jëlee may baay wala may frère wala xatta mayaat jëkkër ja leen ko joxoon suñu borom mu ne su boobaa moom man ngeen ko jël ngeen lekk ko te na nga xam ne nii noonu la hën yi an mari a muy lekk goo xam ne nii dana doon lekk gu dagante tey hën yi an mooy la ngay lekk ci jàmm mari an mooy lu am mujj gu rafet loolu ñu bàyyi mooy lekk goo xam ne bañ koy lekk amul problème ba nga fa mujjee amul problème te xam ngeen lekk mën ngaa lekk dara mu neex lool waaye ba nga fa jógee mu ndil la problème ñam boo xam ne nii dafa yàqu mën nga koy lekk mu neex mais bu yàggee bu demee mu fër la loolu moo tax ba borom xam-xam bi dañ naan booy lekk lekkalal sa biir bañ a lekkal sa làmmiñ mi ngi noonu làmmiñ moom lu neex rek la bëgg waaye nag ndax loolee baax na ci biir ba loolu dañuy bàyyi ci xel bu baax loolu ñu bàyyi xel sunu soxna yi waaye sunu soxna yi ku leen mën a teqale jumboog tag ak ajaag nangam ak nangam mi ngi noonu mbokk lu neex la ci làmmiñ mais lu dangereux la tous les médecins dëppoo nañ ne baaxul ngalla waaye bàyyi leen ko ci yàlla tax gis ngeen su ko defee kon borom bi nag subhanahu wa taala ne ñi nga xam ne mooy sufaha sufaha mooy xale ya ak mag ñi nga xam ne dañoo doy ji koo xam ne mënut a gérer alal suñu borom mun ne bu leen leen jox seen alal ji ndax alal alal yi ñëpp la alal ji dafee nekk pour mën a soutenir société bi yëpp képp kuy yàq alal société bi yëpp la tooñ gis ngeen kon alal jooju yàlla mun na ko def qiyaaman loolu tax hatta jihad fi sabilillah aaya yi ëpp ci alquran yàlla alal lay jiital bakkan alal lay jiital amwaaluhum avant muy jiital bakkan alal mooy indi aj màkk jàkk ji alal la ko tabax alal mi ngi noonu mooy taxaw mooy taxaw ngeen ngeen taxaw amma nag bu leen leen jox alal ji waaye la ñu war a dundee ak la ñu war a woddee ngal la waaye jox leen ko ci maaruf ci la ñuy xam mi ngi noonu jërim baa ngi ni bàyyi bàyyi na alal yaa yor dundam koddaayam fayam bu dee dee jàng école di fay lu mu mën a doon ci maaruf yaa ko war a defal jirim boobee bu ñu demee it ba jirim ba dem koo xam ne nii ko majeur la ngàllawaay nañ ko muñal tuuti ba mu yegg ci jamonoy sëy ça dépend ci société yi masalan dëkk mel na Sénégal xëy na kuy dem ba passé ñaar fukki at moom mën nañu wax ne sëy jot na ci moom borom bi it bi foofu waxul ñu jël alal li jox ko daf ne nañ ko testé ndax mën na gérer alalam déet te loolu suñ mbokk bool bool yi dañ koy def bu seen doom jógee daara dañ koy daajal ab kees defal ko ci ay vis ak ay sóor ak ay yooyu mu wër valeur u dix mille bu yàggee ñu defal ko cinquante mille cent mille bu yàggee ñu dem ba ba ñu koy ubbil kantin waaye lu ngeen gis ci départ volontaire xale yi jóge université ak seen maîtrise ku la ñu yëkkati vingt millions jox la trente millions jox la six mois bala bala muy jeex flamboon nañ ko mu dem kon testé leen ko ba xam ne kii mën na gérer alal su boobaa nag ngeen doog leen jox seen alal su dee gis ngeen ci moom rushdan rushdan mooy lan gis ngeen ci moom njubug mën a gérer alal waaye képp koo xam ne munta gérer alal kenn waru ko jox alal même bu doon te ne mag la bu fi attee islam amoon koo xam ne alalam bu ñëwee mu pasar pasaree ko mu jeex ay mbokkam am nañ droit dem ci attekat bi boole ko su ko defee alalam jooju keneen na koy gérer ñu seet lam ca soxla rek ñu ko koy defal moo lañ tuddee alxajar mi ngi noonu képp koo xam ne nii dafa doon amul rushd amul njub waruñu ko jox alalam borom boobu nag ne ngalawaay boo leen jëkkanteeg jirim bi lekk ci alal ji balay màgg képp koo xam ne nii yàlla may na la koom loo mën a dunde bàyyil alali jirim bi bu ko laal am maana koo xam ne faqiir nga nga xëy suba naroo añ te jirim bi am na fi alal na doon tool la wala ay jur la na doon lu mën a doon suñu borom mën a lekk ca lekkin boo xam ne bu ko mbooloo mi yéegee it kenn du la yedd lekk ca lekk goo xam ne bu ko mbooloo yéegee kenn du la yedd loolu mooy maaruf waaye lépp loo jël ci alalu jirim bi loo xam ne da nga koy nëbb bëggoo mbooloo mi yëg ko loolu boo ko defee def nga lu xaraam borom bi nag subhanahu wa taala ne su ngeen demee nag ba yéeg ne xale bi majeur na mën naa gérer alal ngeen di ko delloo alal ji ut leen ay seede ne kat yéen a seede woon ne kii lii la ko bàyyam bàyyeeloon loolee delloo naa ko ko dana indi ñaari mbir benn dana la muccal la nga xam ne seede seede nañ ne jox nga ko la ko bàyyam waxoon ëllëg si biir xale bu bëggee contesté naan kii mu yor sama alal seede yi ne hé joxoon na la sa alal gis ngeen borom bi nag mu ne wa kafa billahi hasiba xam leen ne contrôleur bi gën a màgg inspecteur bi gën a màgg mooy yàlla jalla wa ala te it yow ndaw mi gérer kees nga la way xamal lool de kees guñ la mën a dénk na doon ñi ngi lay contrôler wala ñi ngi lay inspecter wala lu mu mën a doon xamal ne kafa billahi hasiba de bépp dërëm bu dugg sa loxo dërëm bii ñu ne la kat lii fii la jëm nga la way xamal ne boo ko jëmalul foofu boo demee da nga lay sa kanamu borom loolee ku ne nga ci ñun war cee bàyyi xel te maa ngi koy wax toujours suñu ndaw ñi mooy góor gi Dramane Diallo bi ma leen di wax suñu jàkka ji bi mu paree moo ko jëkk pintur ci alalam moo ñu daan wax ne bu dul woon ak yow mun xisaab man milliardaire lay doon ak dégg ndax nekkoon na ci ay magasin yoo xam ne nii ci Paris yi gënoon a màgg nee na directeur bi moom la wóolu woon kees yëpp moom la ko doon jox mu ne lu ma neexoon mënoon naa ko am waaye yomul xisaab rek moo tax waaye ngallaawaay kon yow mi yor loo mën a yor di ko gérer ngallaawaay bàyyi xel yomul xisaab gis ngeen te it loolu moo la gën a muccal ci àdduna avant alaxira mi ngi noonu Cheikh Ousmane
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بارك الله فيكم سني بروم جل وعلا مني للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون dana ñeel góor ña benn cër ca la nga xam ne bàyyi na ko way jur ya ak jege ñaale ya walinisaa'i nasiibu mimma taraka alwaalidaani wal aqrabuun jigéen ña tamit ñeel na leen benn cër ca la nga xam ne bàyyi na ko way jur ya ak jege ñaale ya mimma qalla minhu aw kasur te na doon lu néew wala lu bari nasiiban mafruuda nañ leen teewul na doon cir boo xam ne bu ñu faratal la wa ida xadara alqismatu ulul qurba su dee daa fekk siddileg alal ja ña nga xam ne ñooy ñooñu jege ñaale ya wal yataama wal masakin ak jirim ya ak miskin ya farzuquhum minhu ewaay wërsëgal leen leen ca loolee ñuy séddale wa qulu lahum qawlan maarufa te ngeen wax ñeen leen wax joo xam ne wax duñu xam la wal yaxsha alladina law taraku min xalfihim zurriyatan diafa e way na ragal ñi nga xam ne bu ñu bàyyi woon ci seen gannaaw lii di njaboot gu lo gu néew doole xaafu alayhim doon nañu ragal ci ci ñoom la nga xam ne mooy seen mujj falyattaqu llah iwaa ñooñu nañu ragal yàlla wal yaqulu qawlan sadida te ñu wax wax joo xam ne wax ju jubla inna alladina yaakuluuna amwaal alyatama zulma ñi nga xam ne day ñooy lekk alali jirim yi ci tooñ innama yaakuluuna fi butunihim naara ñooñu day nekkuñu di lekk seen biir ya lu dul sawara wa sa yaslawna saira te daañ leen weer ca biir sawara bu ñuy tudde sair mi ngi noonu mbokk gis nañu ne arab yi bu jëkk la nga xam ne mooy jigéen daawuñu ko doon nale wax naa la sànq ne xale daawul doon waaye jigéen it daawul doon bal moom ci boppam sax dañ ko daan doon moom ci boppam sax dañ ko daan doon te yi soo xam ne baayam dem na takk ay soxna su baayam dee yaayam rek la fay bàyyi yeneen soxna yépp ku ko ci neex mu jël wala mu mu mu jox ko keneen jël can gi suñu borom nag mu ne déedéet képp koo xam ne nii dafa doon góor wala jigéen sa waa seen waajuru gaañu wala jegeñaale ya ñu war a donn nañu xam ne góor ñi am nañ ca cër jigéen ñi it am nañ ca cër gis ngeen am nañ ca cër suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne loolu dafa néew wala mu doon lu bari ca mbokkit miraas mooy lan mooy dañuy jëkki évaluer waa ji lim bàyyi du ne alal xaalis liquide bi rek la ñuy miraas déedéet bàyyi na kër bàyyi na oto bàyyi na tool lépp loo xam ne bàyyi na ko suñu borom nee na dafa néew wala mu bari nañ ko dajale góor ñi ñu jox leen seen cër jigéen ñi ñu jox leen seen cër léegi nag heure boo xamee ne nii dem nañ bay séddale cër yooyee am na ay jegeñaale yoo xam ne ñoom duñu donn te masalan nit ki mën nga am sër ba bokkoon ndey ak bàyyi bàyyi un milliard te du ci dolli du ci du ci donn dërëm ci donn dërëm boo xisee ba am doom bu góor dara la ci dul donn gis ngeen frère yi nga bokkoon ndey ak bàyyi dërëm lañ ci dul donn suñu borom nag yàlla jàll wa ala ne suñuy séddale alal ji jegeñaale yooyu nga xam ne duñu donn fekk ko mu amit ay jirim yoo xam ne seen bàyyi dee na ca amuñu alal ak miskin yi nga xam ne waa ji deekat moo leen daan dimbali naka jekk te waay jël leen ca alal jooju ngeen jox leen mi ngi noonu ca wax leen wax yu rafet te mooy lii day seen cër la xam nañ ne day diw ñoo ko ñoo ko bokk yàlla séddale nii waaye ñoo ko bokk te loolu it di lu am solo lu ñoo war a gën a bàyyi xel donte ne ne bokk na luy xaw a doy waar ci miraas lu bari ñëw Sénégal da ngay gis ñoo xam ne bu ñuy miraas dañuy ñëw di laaj ay cër yoo xam ne doom ji war a doon sax amu ko ci alali baayam yàggu leen gis looloo ñu ngi noonu am na ci ñu ñeme yàlla bay laaj 5 pour cent ci miraas ñu ngi noonu 5 pour cent ci miraas xam ngeen ne loolu bu dee lu lu lu gën a dangereux ci loolu kenn kenn kenn mënu wax parce que bu doon tey ne 1 million rek déjà am na ci 50 mille kay ne sax da nga naan loolu c'est pas grave waaye léegi bu doon bu doon 10 millions nag 500 mille bu doon 100 millions nag mi ngi noonu 5 millions loolee mbokk képp ku koy def yaa ngi lekk alali jirim ci tooñ yaa ngi lekk alali jirim ci tooñ bu dee ne dañoo woo imam mu bàyyi ay ay mbiram woo ustaaz mu bàyyi ay programme am yendo ak yéen jël alal ji di miraas li yàlla wax rek fekk ni miraas bi la ñuy jox bàjjen yaag tante yaag jiri miskin yi mën nañ ko jël dara jox ko waaye am maa taxaw ne da ngeen may fay temps loo xam ne nii da ngay lor xam ne ñii ñàkk xam moo tax ñu ñu ñu woo la loolee mbokk nga la waay nañ ci bàyyi xel bu baax ñu ngi noonu su ko defee borom bi subhanahu wa taala loolu la wax mu ne nag ñi nga xam ne dañu yor alali jirim ba pare bëgg koo féetewoo xanaa ñoom du ñu ragal ni bu doon te ne dañ doon dee bàyyi njaboot gu sew doon nañu ragal ne sama njaboot gi ana ku leen di taxawu sama gannaaw loolu kon boo jàppoon ni soo doon dee bàyyi njaboot gu sew da bëggoon nga jegeñaale boo xam ne mooy gérer alal ja nga leen bàyyeel taxawul leen bañ màgg waaye yow naka ngay wëlbate ko yow di lekk alalu jirim te koo xam ne ni sa mbokk bu la bàyyi gannaaw te it mbokk loolu mooy réeglu diine lislaam mooy nit ki du gëm yàlla xatta yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsi ku nekk balaa sa ngëm a baax la nga bëggal sa bopp ngay bëggal say mbokk julit borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni ngal la way nañu ragal yàlla te xam ne ñii ay jërim lañu naam mën nga leen a noot jël seen alal mais yàlla nag yàlla mi borom alal ji nag te mbokk ki dee moomul alal ji de yàlla da ko ko dénkoon ba fi jógee alal ji alali yàlla la képp ku ko jaaralul fu fu neex fu neex yàlla yàlla ngay amal affaire looloo tax suñu borom mu ne fal yattaqullah nañ ragal yàlla te ragal yàlla googee mbokk mooy tax ba boo ko deful suñu borom nee na musiba moo lay xaar def nga koy def it dalay tax ba ëllëg ci si biir yow it boo bàyyee njaboot yàlla taxawu njaboot googee yaakaar naa yéen ñëpp yàgg ngeen dégg xisa Moussa ak Xadir ba ñuy dem ba ci benn dëkk Xadir fekk benn miir bu daanu mu yëkkati defaraat ko Moussa ne ko mënoo woon laaj li ñu fay la mu ne déedéet miir bi dafa am ñaari jërim ci dëkk bi seen bàyyi dalee na bàyyee looloon alal mi ngi ci suufi miir bi léegi sama borom moo ma jox ndigal pour ma yëkkati ko ngir balaa miir bee mabbaat fekk ñoom màgg nañu loolee la ci borom xam-xam yi di wax ni képp ko ragal yàlla na nga ko war a ragale yàlla du la seetaan sa njaboot dana la wuutu sa gannaaw te it suñu borom mu ne inna alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika ala taxaafu wala taxzanu ñi ragal yàlla jub malaaka yi ñooy leen di dalal alaxira gi ngeen jëm amul leen ngeen fi ragal njaboot gi ngeen bàyyi gannaaw laa taxzanu yàlla dañ leen wuute seen gannaaw bokk na li ñuy nettali ci Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah ba muy faatu ñu ne ko waa yow sa doom yi doo leen defal testament mu ne jarul ma leen defal testament la chaque ne bu dee ne ragal nañ yàlla yàlla du leen seetaan gis ngeen bu ñu ragalee yàlla yàlla du leen seetaan gis ngeen ala kulli xaal suñu borom yàlla mu ni nañu wax wax ju jub qawlan sadida te nga la waaye xam leen na mbokk julit mbaax mi ngi commencé ci wax ju jub am déet suñu borom yàlla mu ne yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida lu ci yàlla teg yuslih lakum amalukum wa yaghfir lakum zunubakum képp koo xam ne da nga dëggu ci say wax li ngay wax lépp dëggu na ne lii nga nar a def borom bi yàlla moom mooy yéwanal say jëf fal yaqulu qawlan sadida wala yonente bi alayhi salaam ne nit du jub lu dul xolam dafa jub xol du jub lu dul lammiñ dafa jub mi ngi noonu borom bi nag daal di koy tëjee ni xam leen ne ñiy lekk alali jirim ci tooñ di wax nañu sànq ne faqir mën naa lekk ci njekk day na am waaye ñi nga xam ne dañuy lekk alali jirim ci tooñ xam leen ne seen biir ya sawara rek lañ cay lekk ca sawara sair moo leen di xaar doonte ne mbokk lekk googu buñ koy wax firiwul ne da ngaa jël lekk ko waaye oto ba nga jëloom kër ga nga jëloom jëfandikoo ko ci alali jirim fekk ne da nga koo lor loolu lépp da ngay gis ne ci musiba yi gën a garaaw ca la bokk lii mbokk kon da ngay gis saar bi am na ñu koy tuddee suratu du'afa mooy saaru ñi néew doole dafa ñëw ngir défendre jigéen ñi défendre la nga xam ne nii moom mooy jirim yi miskin yaa ngi noonu wax na ko sànq miskin yi lañ leen bàyyi xel di leen jox ci alal ji nga xam ne muy circuler lii lépp képp koo xam ne nii jëfandikoo nga ko la chaque ne suñu borom dana la taxaw te it bis booy wanee gannaaw suñu borom dana la wuutu yal na yàlla boole ñu ci jaamam yi ko gëm jaamam yi ko ragal mu leen di teral adduna di leen teral alaxira yal nañu yàlla jàppale suñu njaboot bi ñuy dund ak ñoom yal nañu yàlla wuutu suñu njaboot bis bu ñu leen wanee gannaaw wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw bokk na mbokk bi lu muy laaj xadis bi nga xam ne rasul sallallahu alayhi wa sallam day wax ni nit dina julli ba pare ñu bindal ko fukkeel ba wala juróom-ñeenteel ba wala ila axiri wa ala kulli xaal suñu borom yàlla jalla wa ala moo ne wali kullin darajatun mimma amilu jëf yi da ngay gis ne nekkul loo xamee ni ni luy yem la ca yàlla su ko defee julli dafa am zahir ak batin zahir bi mooy nga dëppale ko ni ko sunna jàngalee batin bi mooy nga toroxlu ci biir julli gi moo tax suñu borom subhanahu wa taala mu ni lazina hum ala salatihim yuxaafiduun ay di ko wattu ca waxtu wa daimun di ca dal xaashiun di toroxlu léegi nag doomu aadama bi jullim bu dee ne fexe na ba allahu akbar ba asalaamaaleykum lépp dal na ci déppale ko naka yonent bi alei salaam doon defee et tamit bi mu naan allahu akbar ba asalaamaaleykum xelam yépp mi ngi ci julli gi ku mel noonee julli gu mat sëkk la am gannaaw ba nag julli gi di wàññeeku te na nga safaanoo ak sunna di wàññeeku te na sa xel deme ci leneen lu bokkul ak julli gi ba baa ñoo xam ne dañuy dem ba seen julli un lañ cee am am ñoo xam ne seen julli zéro lañ cee am ndax bañ ñee salaamaaleykum ba allahu akbar salaamaaleykum xamuñu lu ñuy def dara loolu moo tax ba nit ki muy julli war a fagaru kemtelal kattanam ba teewal xolam wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam wala kulli xaal imam bi dafa julli ñaari rakka daal di sëlmal bi mu sëlmalee jóg motti lu julleem ba pare avant muy sëlmalaat te ñetteelu rakka ba mu sujjud ñaari sujjud doog a sëlmal waaw li ñuy kii li ñuy wax day mooy bu dee ne la nga xam ne moo gën a siiw ci waxi borom xam-xam yi day dafa waroon a sujjud ba'da salaam mooy dafa yokk julli gi xanaa imam daa jàpp daa wàññi julli gi waaye daa yokk julli gi ay da cee dugal sëlmal boo xam ne bokku ca woon loolu kon dafa war a julli ba pare taaye ba pare sëlmal doog a sujud la nga xam ne mooy ñaari sujud waaye teewul nag julli ga baax na moom julli ga baax na imam même bu juumee ca sujud yi muy sujud waroon na sujud qabla salaam mu sujud baada wara sujud baada salaam mu sujud gi julli ga moom baax na doonte ne la gën mooy heure bu yokkee mu def baada salaam heure bu wàññee mu def qabla salaam wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam alayhi salaam wala kulli xaal loolu ishkaal la boo xamee ni nii dafay am ci sunu sëy yi ci Sénégal boo demee ci ay dëkk yu bari la xewoon jamono yonent bi alei salatu wasalaam mooy can benn can la can benn can la ñaari can xamuñu ko ci sëy bu dee ne da ngaa ñëw ci sëy ñu ne la ah kii kat bala ñu la koo may li ñu mayoon ay frère am mooy un million un million boobu la ñu jàpp mooy can dañu mayoon ay sëra mooy un million un million boobu la ñu jàpp ne moom mooy can am maa nag nga dem ca kër ga ñu ne la kii duñ la ko may mu kii indiwoo un million nga indi un million par ñu dem ca jàkk ñu ne can gi six mille francs la loolu loolu bokk problème lay jur ala kulli xaal daal nañu xam ne lañ lay laaj ne la lii mooy ak can loolee da ngay gis na mooy ak can su doon te ne nag waajur yi moom moo ne ah sama canuk doom day quinze mille la yow yaa am sa coobare dem maye fee un million dañu xam ne sa coobare yaa maye un million can nga mooy quinze mille waaye daal nañu xam ne can ci lislaam mooy la nga xam ne dañ ne boo ko indiwul duñ la may jabar mooy lañ la laaj may la jabar moom mooy can wala boog ñu ne la can gi indi loo loo am nga indi nga yëkkati jox leen ñu nangu loolu dañuy jàpp can la ba tey loolu daal mooy nekk kon benn muskila boo xam ne nii bari na lool ci sëyu Sénégal yi ñuy laaj ndax lañ laaj la lañ laajte woon la ñuy wax wala lañ tuddoon ca jàkka ja la ñuy wax mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam naam naam naam naam ala kulli xaal yonente bi salaa sallam dane yàlla dan dana malaaka yi daan yëkkati ci yàlla jëfi jaam yi alcina alxames yàlla day jéggal mboole mi jaamam ba mu des bokkaalekat yi ak ñi nga xam ne dañoo juyoo njéggal googu lañ dul bokk su ko defee duñ ne nanguwuñu jëf yi waaye njéggal ga la bo yonente bi alei salaam ne yàlla danaan ñii ñoom ñi nañ leen yeexe ba baa ñuy jiboo loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax ba nga xamee ne ay julit lu ñu mën a nekkee war nañoo mën a nekk di yéwanoo lu dul koo xam ne nii la tax ñu koy gàddaay mooy bakkaar bu bon bu mu nekkee ca nit ñi jàpp ne buñ ko gàddaayee loolee mën na ko delloo gannaaw loolee mën nañ ci ëpp ñetti fan mais bu dee seen problème mu àdduna di di rek ngeen séq la nga xamee ne nii moom la julit war a góorgóorlu noonu nga bañ a passé ñetti fan wallahu subhanahu wa taala alam naam mbokk bi doon yëkkati fii naam bismillah ala kulli xaal loolu moom ay ay ay ay ay détail la li ñu mën a wax daal mooy nit ki moom biy dund mën naa organiser boppam nu muy defee ko soxnaam bis bu dee nag lépp moom moom soxna yee ci yem képp ka nekk pare ki nekk fuutaa ci bokk yem ñoom ñoo yem képp ci alal ji amma nag nooñu la ñu yeme képp ci alal ji nañuy arrangente seen biir ba ku ne ñu jox ko ak xam loolee moom mi ngi aju ci ñoom ak ñi leen di miraas waaye daal sharia moom li mu wax mooy ndax soxna lañu wala duñu soxna su dee soxna lañu ak fu ñu mën a féete ñoom ñoo yem képp ci seen miraasu borom kër wallahu subhanahu wa taala alam waaw xanaa ñu mujj ca mbokk bi la rek ngeen baal ma waaw bismillah waaw waaw yàlla mooy dogal lu ko neex ci ay jaamam li tax yàlla jaglal ko mu nekk yonenti moom kese waaw looloo tax yàlla ko jagleel mu nekk yonenti xeet bi moom kese loolu moo tax yàlla jagleel ko mu ëpp mu am lu ëpp ñeenti jabar loolu dogalu yàlla la donte ne ne li ngay mën a laaj rek mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam pourquoi mu takk lu ëpp ñeenti soxna loolu mu tax takk ñeenti soxna yi soxna yooyee la ca bëri bànneexu bakkan taxul yonent bi mboolem soxna ba mu takk rek dafa am xikma bu tax mu takk ko xoolal sallallahu alayhi wasallam bi grade yi ko yàlla ma yëpp benn jànq la ma sa takk muy Aïcha benn jànq la ma sa takk ñi des ñëpp ay ñu jóge ci yeneen sëy lañu kon ci stratégie politique la doon tekkee imma ngir ref dooleel diggante ak ñu am influence ci moom wala ay ay buur wala ay nangam loolu moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam bari woon noonu la nga xam ne ni mooy ay soxna amma nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala moom moo ne ko lii maa la ko may mu nekk xaalisatan lakk ba pare it wëlbati ko tënkaat ko feneen foo xam ne tënk fa yeneen dulit ñi te mooy yow laa yaxillu laka nisaa'u min ba'd gannaaw neuf yi nga yor amoo droit takk beneen jigéen amaa suñ càmm mën a takk quinze femmes vingt femmes sax ci dundam parce que tant que heure bu fasee mën na remplacer bu kenn dee mën na remplacer ba nga xamee ne daanaka yonent bi gañewul nit ñi lu bëri ala kulli xaal jagle la boo ko yàlla jagleel yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiq fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain